seen sitcom VIP Sensei. ak being at home design your life Zo Beauty Cosmétique contact 77 127 68 86 Ice de job. l'art de la voyance Omar Cheveux Touba Cité Lumière les spécialistes du luminaire original Bazin suisse Gold marche HLM ñoo de may sitcom VIP Sensei. Thiam da ngaa mën lire. liiruma photo yi lay xool. photo jënd journal pour xool photo doom yaa ngi yaat sa xaalis nag ku la bàyyi. jàmbaare ku la xam nga lan mooy yàq yow. ba ma jógee France ba tey. gisoo taay musal wengali ma jël. nga ne sa lamp yi ngeen taal toute une journée te du fay. dégg nga càngay. loolu mooy yàq Daba daa mën daa yëngatu de. Thiam Gaynde moom du changé. c' parce que fayu leen facture moo tax ngeen di fii boutique la da koy fàtte à chaque fois yi ci liggéey bi la bokk da nga fàtte ne ay tissu te lampe yi mooy génnee taaru tissu yi il faut lampe yi di taal. taaral boutique bi. da ma koo gën a xam doo ma dimbali yow. mais si Thiam nii rek di daanu rab mais day am am rab tey moom dinaa ko ne maa ko ëppi ay rab foofu.

Provocaram-nos que puteiro! Il faut jëlee ay rab. yéen lan moo xew si boutique bi. tourisme moom xanaa feebar bu bees la. ah ah déet na. caam nag loolu nit ñi. waaye bu leen ma fàttal mu yéen. qu'est-ce que c'est que ça branche téléphone mais da ngeen bëgg a que prend ta fan mais courant bi may en fait. que yow xam nga équivalence 100% au téléphone économisez la s'il vous plaît pour tout pour taeto leexu akbar bi yat mais Thiam yow lan mais qu'est-ce qui se passe monsieur Diab bo ba tay rek yaa ngi jël nit rek amé len leen procédures what monsieur Diab xana xamoo fi Sénégal le pays de droit là ku nekk da nga am sa pour wax mais ça tu ñu. tu droit. Babel. ah. nopi mu sa fa. you know what I mean. yére yow le sa atelier bi ni mu désordonné pour la la désordre bi yëpp pour la la sa atelier bi le ah désordre mais c'est ça maa ma toñ waye tay nak toñ dama te bëgg na nga xam leen fi lu sa bureau sama bureau la wat wat ak 8 la ci yemalé fi sama bureau la man waaw te li nga jappé désordre ni ordre la ci man yow xamoo dara leus waa Yo, xamoo communication yo image communication le la la dal ne uude la gisee non la lay ëwree lës ta atelier bi bu ah? mais nit nga ne fait pas le moine boy non wala mais ku fi désordonné lay jox eh organiser atelier ba mu ne sinon dama lay quoi gën a gaaw pour ndappa DJ mais sa caam fan nga jaar bi ngay ñëw yow mii am na lu jël ci matin bi di ba ngay de leer na ma ni kër Albert nga jaar bi naan foofu ay jooni wal kër jooni waaxu bàyyi leen jooni wal kër léegi yow laay waxal gis nga fii ku tukki la nga la ci yow la man may sa caam sa king bu ma même bu ngeen ma jooyul fan si dinañ ñëw ma sa leer na ma ni kër Albert la jaar di fa naan wal keer ak jooni waaxu. xanaa na moom woon. nga dëgg-dëgg ci namm ma wala laa def. sa chips yi ngay ci boutique bi laa bëgg nga bàyyi est-ce que dégg ma lay ah. yow ginax dugal ci bi. dama ni camarade camarade. mbéjum kanam borom moo koy fajal. boppam <laughs> mais caam nu mu nekkee ci bitig yaa fa suñ mel ni ñoo ko ci. bàyyi. <laughs> naa nag. <laughs> kon dama ni camarade. mu nekkee ci entreprise bi ak ci bi la war a dakk. Ah. na dem na dem laa nan du ben dëgg fat bu so yow sum-sum nga nan sum-sum yow Bintu Jaab da nga deg fi benn yoon rek wax wax commande da nga deg mo fi ay kàddu commande buso di bi nu wacce jaar me gara Yoff te leer na mané ne baar boobu bi njoona fa nga jaar yow nga man ni fas bu jigen bu mam toppa lës mi ak daba njaay mi ah lës mi nga xamne ne moom talul dara faalewul dara dama njaay na nga lu muy xaar nga jotee may sa càmba abale mu ñëw toog kër goo xam ne yàqu guddi yàqu bëccëg c'est du n'importe quoi yoo xam ne comme ay nit xoolal man ñoo xam ne comme ay ginnaaw yàq rek sàggane sa sëy bii nag hmm. camarade vrai defe waaw defe yaa Pat Bousso bu ma santale kamara sama santu baay bi cham doyna na ma sëkk ak ah, sama santu jëkkër caam bul ma santale kamara mu yow yow fat bu nag nak yang may togn de lu ma gëna bañ gën ko bañ sama adina nga may def muy sosal ma samay rab nangu ko bëgguma ko may sosal hmm. wax ma looy defee ah mooy wor waaw kat nga man cham man Thiam Babel Demba Thiam man ñeeñu bii man zoo caamay sama maam man juróom ñaari maam yu ma am xamun wor kon du jur di wor kenn waa baax na dama ne woon rek bàyyi ma wax ak yow balaa sëy bay tas leen de bëgg naa nga xam ko doom nawle la jabar nawle la liggéeykat nag garmi la te gis nga si Thiam yuuxu bi mu nekkee fii nii ci biir VIP dafay daq te man mii nag maa koy dàqal sama syndicat bi moom duma ma ci jug tey du ma ci jug ëllëg ana waaw sa kaye bi kaye lan la yow. li kaye doléance la. Fatou Bousso lan mooy condoléance. waxuma la condoléance dama ne la kaye doléance te bëgg naa nga may ma fii kenn deewu fi.

parce que fii ay kilifa ñoo fi nekk sinon dinañu grève te bu ñu grève dinañ woo waa Walfadjri bu ñu egsee dinañu ànd jébaane la te bëgg nañ loo mu leer sa bopp d'accord dégg naa la yuuxu yi rek ngeen bëgg mu arrêté anyway demal nga wol ma leen ñoom ñëpp nga dajaleel ma leen anyway ñu ñëw sama sama bureau léegi léegi jugal looy xaar jugal nga dem on a gagné on a gagné on a gagné. dafa war a arrêté di yuuxuwaat rek. d'abord lii dañ ko yéex a def ndax nag trop c'est trop à oh. ah, bientôt. ne vous tentez pas. maa ngi ci seen ginnaaw maa ngi ci seen kanam maa leen di waxal li ngeen bëgg n'est-ce pas Bintu. <laughs> Eh, mu ngi nii Amba yuuxu caam. Amba yuuxu caam. Amba yuuxu caam. Amba yuuxu caam. Amba yuuxu caam. Amba yuuxu caam. Amba jam ca. yuuxu caam. Upa jam. Upa jam bi moo leen gën a. maa ne Upa jam. nekkuñu face to face nekkuñu ci làmp demal nga toog du man ak yow you know mun a ci yuuxu jëf ok dégg naa leen yéen ñëpp dégg naa la ngeen wax amul benn problème da ngeen a bañ ma di leen yuuxu moo tax ngeen tuddee ma yuuxu càmm dootoo leen dégg ma yuuxu leen dootoo leen dégg ma gëdd leen ok amul problème dinaa leen di fekk si anyway yi mais nag bu ma kenn laajati dërëm ndax dootuma joxe dara suma poste dama koy téye you know what I mean bu ma kenn laajal ah I will give you money leer na dootuma joxe dara you know. ndokk ma si jàmm téyel sa xaalis <laughs> n'est-ce pas Bintou. ñëw on a gagné on a gagné on a gagné on a gagné on a gagné on a gagné. Amouso elle n'a rien compris dafa dof rek.

asuka mara sama hari be dama ko waran a ndawtal li ma rek jàpp ci yow ni nga mana kau xew man xew may dundal lay yow faat bu so tëri ma sama lay yow ma lay avion nga may may vélo ah te du royal yoruma mu dama nga ñaan may si caam kan may may sa càmm mel waaw du yow yaa ne may sa càmm na bàyyi yuuxu yi may sa càmm ne bu bàyyee yuuxu yi day téye poosam. mais yow daa am loo fàtte xanaa da fàtte ne chaque lundi ci heure bi ci nga mën a dóoree jàpp ne man ngaaka la. may sa càmm yow bu dee xam nga ne dama lay dóor kon moo tax ngay nangu ma lay dóor. xam nga lu gën a neex ci àdduna. lu ñu nekk yëpp yaa ñu ko teg nag. léegi na la ñuy def. xanaa mu fëgg la mbaj. mbéy dafoo sax da dof yow dafoo. ngay sétan dof mu dila jappé dof <laughs> da ngay laajte ba xam man dama dof wala dofuma wa sa xélé la ndëm man dama dof ba do poral lutax nga wax lolu jël sama adina bi tek ci loxoy ñaareel moo ma dof ba légui lolu sax taxuma jóg kay gi gitu. joxuma la yu mbaru syndicat Fatou so bi motax ngay wax lolu ay fo la de loolu yëpp dañuy ambiance di xumbal dong mais xam nga ni lii ay foo la lii day dara. daba jaay man foo taxuma jóg. you know what I mean. man li may foo foo naa ko jamonoy xale. temps yi may dawal mbege yu doon pronto ko dit ci dégg nga ma. baax na. Hmm. yow Bintu Thiam affaire du defe yaa nga bëgg a def fii. waxul defe yaa dëggantaan jaay nga fii wax nii. gis nga yow dangaa bëgg affaire mbiri suñu syndicat bi waaye man duma ko nangu. yow Fatou Bousso yow Fatou Bousso yow lan la fat bu soo may wax waxi ndawtal nga may wax waxi maasa syndicat ya. mon dof na de waye yow da nga do poral sama syndicat bi kel mun ko mun na waraate ba bëgg a yow gis nga fat bu so yow xam nga ni fat bu so beugula nak ni mi doxale ni su du ko def man daba njaay yen ñëpp yam si sey neuf vous êtes tous pareils du yaa ngi ni takk sa rouge di ma wan da ngay ñaxtu yoo tamit lolu doy la nga sol sa tour rouge di ma wan ne ci gëna mer di ma saf dina ju xif bu ma fonto ah jógal nga génn sama bureau ci biti ajo lii pour la la jëlul maa la ko may lu may doy problème bi waaw maa ko may

man ngay jéem a bàpp ñu naan ma ay rafet kaar pour def li ñaaw bul sax dugg ci détail yooyu du dem xoolal maa ko jëndoon da ngay bàyyi su ma génnee ma sarax ko taalibe yi wax ci jeex. i waa tonton sax sarax ma ko. non yow doo taalibe jéem koy sarax doo taalibe de yow graviste nga voilà. waaye lu ñu may victoire bi nag moom mooy ànd booloo xàccandoo dóorandoo. waa léegi bàyyi naa. lii la la. bàyyi naa. bàyyi naa grève bi. Dieye est-ce yow bàyyi nga. bàyyi naa. say mbir leerul la Dieye. bàyyi naa ko de. Dieye est-ce bàyyi nga yow. bàyyi naa. xaaral balaa ma la jox ci lu wóor lañ koy teg. nee nga bàyyi nga teel nii. te signal ma fi ndax mu wor ma na yow bàyyi nga yow. ak ya gaaw a féetu victoire ah yow est ce que sa sa bop sax. lu xew xam nga li xew. victoire bi arbitre bi annulé na bit bi jàmm ña jàmm nañu allah. qu'est-ce que ça veut dire ça je comprends pas soit plus clair ah. fàtte naa yow deggu olof sax dama ne. syndicat ba tas na tasar tas li ñuy fété paré guñ ko mënul tas mënul sax nek mu yéen ak mëna né ne ngi seen légui bintu cham ak daba jaay ña nga bintu bintu biro mesa cham lu ngeen fi def audience ma la ñaan audience lu ngeen ci djublu wa lay lay war ñu bayil ma ñoñu ay défaillant lañu waaw man ak yow en tout cas ci lu ñu nek buñ ci jugee may sa cham man ak yow kessé mën nañ koo ba mu ko rek de ko ci la lañu war ba duñ la guerre may sa càmm ma gis day gëraate bi di noom sans principe kenn mënu maa gor man je suis un homme sans principe waaw yaay am jom jokkoor maa jor jokkoor le kumba jor jokkoor le ré foo jëlee lii ah waaye yow mii loolu mel ni kuy jaamu xërëm ni affaire yahud yi noo ko mëne lii sama injil ah nga koy raay. loolu si sa nga lii la la ni lii. andi lii bés itam moo la ko jëndaloon nee na comme que da ngay grève naa ko jël génne ko boutique bi ku njëkk a gis daal ma saraxe ko. nga ni.

tàngaay bi ñu coupé courant yi kenn newul ci jaam ah lii nag du dëgg nag. waaye lu xew. dañuy ñax ñaan audience. audience. <laughs> yow da nga président buy ñaan fii audience lu may wax léegi nii dox bi. xanaa may sa ah. caam may mooy sunu président ñun bu ñu amee soxla moom moo ñu koy fajal moom lañuy ñaan audience bu ñu kenn rey. dégg nga géwël bi. ok moi je de sa dama ne ani courant bi. courant bi de secteur bi coupé ba la <laughs> non non non non. courant bi coupé ne tàpp da am facture six cent mille ko donc ñu coupé len docteur docteur bo amé cancer da ngay ndax nga sañ wax. Hmm. ah ëpp na. malheureusement nekkuñu hôpital. te man duma docteur man coupeur là..! coupeur de route. coupeur de courant. mais 600 600000 c'est trop coupeur de route. Ah bah, hein. dafa bari nous on paye pas ça. yooyu ñamax ñamax yi de coupeur de route coupeur de courant c'est quoi ça. 600000 c'est trop on paye pas ça. si c'est possible vous l'avez consommé nous couper leen xam nga leen baaxoo naan ñun dañoo kersa kersa ku mi man sama yi ma jël ci a ñaw yi ci kanam fa groupe électrogène oh d'accord ok euh, li ma mën man ngi fi ah, parce que am na ñeneen ñu ma a couper donc euh, bu fekkee mën ngeen ko fay ci avec seen portable peut-être je sais pas bon je vais vous mon numéro après contacter wala me contacter rétablir ko ok ci kanam ah. yéen yéen yéen yéen yéen de sippe sippe ngi mais dafa arrogant ah. di. syndicat des travailleurs de VIP sañse ah. amal mais ana kaye bi gisuma de. kaye bi what non non non non non. kay non, non, non, non, pour non, non, mais non, <laughs> da non, non, non, am non, revendication du non, dem revendication syndicat day revendication you know what I mean hmm? et puis du non, di non, non, ana non, porte porte parole non, porte parole wax leen bokk kan mooy Mademba Sob. Càmbaabe ñun de dañoo amoon benn doléance. far bu sa waxal. je parle pas yow waxal yow. yaa war a wax doo wax waxuma waxal yow ah waxoo waaw. càmbaabel ci soo ba léegi ñu ngi ne naan nga bàyyi yuuxu yi waaye ñun ñii dañoo bëggoon nga continuer waat di yuuxu yuuxu yi na gën a jëm kaw na gën a fort loo yuuxu doyul càmm waaw. bindu càmm kooku bul ko sax xalaat.

yow da nga may attaqué nii quoi. non yuuxuwuma leen. eh. eh yuuxuwuma am naa ci droit wala. sigil bul ma sonal. facture courant baa ngi nii. Eh? facture courant lii la la nii. six cent mille francs. épisode bi ngeen doon seetaan yu yi ngeen ci gis Giorgio International 33 Cité Air France Ouest Foire koñu numéro de téléphone 77 222 02 43